jërëjëf mbokk yi li ngeen di gis nii moom lañ leen fa yéene indil muy huile karoot huile carotte mu huile goo xam ni dafa baax ci der waaye baax it tamit ci karaw dafay dimbali der wi ngir mu mucc ci li nga xam ne moo di ras daf koy dimbali ci li nga xam ne moo di tache yu chronique waaye daf koy dimbali ngir mu mucc ci yenn xeetu feebar yi nga xam ne mën na ko song muy huile boo xam ni dañ koy fartaal di ko digal sax nit ñi di ko naan bu ñu xëyee suba. ngir mu aaral leen ci li nga xam ne moo di seen foi waaye tamit aaral leen li nga xam ne moo di seen rang kon mbokk yi lii mooy huile coco huile la koo xam ni baax na trop képp koo xam ni daanaka soxla nga ko incha allah soo wootee ñun si 77 244 98 05 incha allah dinañ la ko daal di livré fa nga nekk muy 77 244 98 05. jërëjëf mbokk yi li ngeen di gis nii moom lañ leen fas yéene indil muy huile carotte huile carotte.